bokki jullit yi gën a ba nu sant yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñëpp di balu xaq ñëpp yàlla noonu yàlla boole jéggal suñuy rëcc rëcc suñu digganteeg moom tabaraka wa taala te mu dox ci suñu digganteeg suñuy moroomi jaam ba toppante bi mu bi mu seetlu te xamoon ko lu yàgg ba wax ne ëllëg ak si balaa kenn dugg aljanna loolee doon nuux nuuxu ci ab xolam moo xam muy mbañeel wala xol bu neexut ci moroomam da koy tàggaleeg moom mu door a dugg aljanna yàlla nañu ko yàlla tàggaleeg moom fii suñu digganteeg suñu moroomu jaam ak suñu digganteeg moom tabaraka wa ñuy dénk suñu bopp dénk bokk juddit yépp ñu gën a bàyyi xel yàlla te gën koo jàpp xel te di ko sant ci xéewal gu gi mu ñu defal ba boole ñu ci diineem ji mu tuddee al in inna diina inda allahi al islaam wa man yabtagi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l axirati min al dañu doon waxtaan ci xutba yu jiitu ci wàllu bisub aljumaa ci boppam rawatina jullik aljumaa waaye léegi léeg ay bokk dañ naan nañ dellu si ci nangam ak nangam ak nangam ak nangam alhamdulilah ay benn benn ñu ngi ko ci jàpp rek loolu bokk na ci li taxoon ñuy woote bisub aljuma ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana def euh, ba di soog tàmbali jullig aljuma daf daan julli ba sëlmal door a wax ak doomu aadama yi waaye bis lay wax ak ñoom lii ñuy wax tey conteneur wàcc fi barab ci dëkk bi bañ ne conteneur ba ñëw na rek bañ ne asalaamaaleykum rek ñépp bàyyi ko fa ba mu des mbooloo mu tuuti ñi ne fukki nit la ñi ne fukki nit ak ñaar ñi ne juróom nangami nit yàlla ne ko nag aljuma yi di ñëw wala ja ca toppaat bala ñoo julli na nga wax ak ñoom ndax ku julli gi tax a jóg dana ko dégg mooy fi mu wax ci alquran naan ida raaw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qaima waaye bu ma nee ne na ngeen wax ak ñoom ne leen maa inda allahi xayru min allahi wa min atijara wallahu xayru raziqin yàlla mi fi woote man na nag wetam yàlla mi fi woote ba tax ngeen wuy si woon ko yàlla mën na booram ku mu woo dana la jox dana la wax boo yàkkamtiwut te yàkkamti yàqati moo tax bisub aljumaa bokk na ci lu bari lu mu rawee bis yi ci des yépp bis yi ci des yépp kenn ku ci nekk bu waxtu julli tusbaar jotee fu mu ko fekk rek mën na ko fa julli moo xam muy jege jàkka moo gën moo xam mu nekk ci biir këram wala fa muy liggéeyee wala ci ab tukki waaye fu ne daal mën na fa jullee waaye bu dee bisub aljumaa moom yàlla dafa gàll ci aw loos loos yi euh, jullit yi ay ci mukallaf yi ñu dëkk ci dëkk yi ci dëkk juma nekk te mën a dem julli ji ci jumaa ja benn mu dox ak tànkam wala mu am paas jël oto bu ko ci yóbbu taxi wala saret wala tata waaye euh, li tax ku yàlla woo dana ko wax walla mu jox ko julli ji aljumaa ku mu war ci aw loosam di góor di jullit aw walad di jullit di góor gu mat mu kàllaf te dëkk ci dëkk bi te amug wér noonu itam wàccu jigéen ju nekk ci dëkk bi tey mu kàllaf te amug wér waaye nag moom dañ caa gàll tuuti lu ko cee mën a gàllankoor waaye jërul muy tudd gàllankoor yi waaye manis naa wax luy tax mu mën a ñëw rek mooy buy ñëw moom jigéen bu mu waaj mel ni ku jëm ngénte doonte waajtaayu dem ci jumaa moo moom waajtaayu dem ngénte ci jullit benn la war a doon ab jullit warut mel nii fii mel ko fee waaye gën nañ caa taamu moom buy ñëw mu bañ a fexe ba jaar ca kanam jigéen kanam góor ña wala mu yor luy yëngatu lu ñuy xame ne jigéen a fa romb wala yuy xeeñ yu wane ne jigéen a fa romb ndax ñi leen yàlla wuutalee noonu la wuutalee sax ba ci seeni xet kon na yoot ndànk nekk ba góor ñëpp toog mu jaar ca gannaaw dem toog ca gannaaw a gannaaw a gannaaw a gannaaw ndax yàlla inna almuslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanitat ba àgg ci wadakirina allaha kathiran wadakirat aadda wa ajran azima bokk na ci yi ajjuma am te bisi ci des amuñu ko mooy képp ku julli ji ajjuma gàll ciw loosam moo xam góor la wala jigéen la yàlla tegal na ko fa lu duun loo xam ne dara jarut di ko wuute rawatina nag mu waaj ko waajtaay wam ko war a waajal bu fekkee ku ko mën la mu sangu door a julli ji sang cangaayul ajjuma nag moo cangaayul janaaba tuutee leen wuutale tuuti defin wen la rek tuuti ku dem ci koñ ba mu dëkk bu ko laajee boroom xam-xam dana ko ko leeralal rawatina sol lu baax lu neex xool loo xam ne tey kuñ ne ci woon kaay wuyu sëriñ bi mu daal di jógee fa mu fa mu toogoon rek dem wuyu sëriñ bi ndax dem ci bi das koy waaj te sëriñ boobu bi day ànd ak ñun ñii ñu waaj nag jëm ci yàlla sëriñ boobu ñii waajal ci ak dem fexe ba booy dem doo fa wax lu dul noona da ngay sàmm say wax ba di bàyyi xel wax fa lu mu fa war wax am ko ko doxe gannaaw def ci moom bis bi tapp ci altine waaye dana fexe ba poosam dara nekk ca waaye dana fexe ba mel melokaan woo xam ne ñi si ne ci bunt bi danañ ko bàyyi xel ba ba ak seen jàll la ko gaaw loola suñu borom moo ko gën a yeyoo ñëpp waa jëm ci suñu borom moo gën a yeyoo loolu lépp ndax moom sëñ sëñ bi ak man taalibe bi dañuy àndandoo ñun ñépp nag bis wuyu suñu borom bu dee poos bu diis bi ñuy waajal dem ci sëriñ ba yàlla soxlawut poos bu diis waaye xol bu set ci la soxla rek bu yére yiñ ci soxla ba ñu ci bunt bi gaaw ubbi ndax kii yaakaaroon na ku ko ubbil xay na dara mën cee juddoo yàlla nee na libaasu waa la soxla ci nit ki waaye nadaafa muy xay xay gu mat sëkk ba nga xam ne koo jege du yàkkamti nga sori ko walla koo jege bu séenee kuy ñëw mu fexe ba dox ba koy ñëw dox sa digganteek moom wata lu ma ta bàyyi xel ci bisub ajjuma la waaye nadaafa boobu ba ca suñu boroom gën a soxla moom itam mooy nadaafatul qalb nadaafatul qalb xool bu set wécc bu xay boo xam ne lenn lu ñu tudd di tudd suñu borom tabaaraka wa du ca nekk ndax kat yàlla euh, ku mën a seetaan la wax nañ ne kuy wut ki daq seetaan boo ko teggee bu ko teggee du ko gis waaye ku fiir la itam fiir gi mooy sax boo ko tuddee si mbir tudd keneen mu bàyyee laa kooka di leen xaar nag yéen ñaar ba xam kooka lu mu lay mënal yàlla nañu si yàlla musal waaye bokk na ci li ci gën a amati solo itam ku dem ci jàkka ji mu xerawlu istimaa ak insaat yàlla ñuy wax ci alxuraan naan yaar yooyu la sa boole door a teg la muy fay ku def bu njëkk bi ak bu ñaareel bi rawatina mottali ñaar yépp léeg ñu jëkk tudd mbir moo xam ne moo war a jiitu ñu teg ko ca waaye léeg-léeg ñu mujj ko ba buñ ko tuddee dutuñ tuddaat leneen ida quri al quranu fastamiu lahu wa ansitu laallakum turhamun yàlla ñu ko yàlla defal kon yooyu ci tënk bu gàtt mooy li ëmb bisub aljumaa yàlla nee na ci làmmiñu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na yàlla nee na ku jàpp ba set jàpp nag daa niroo ak jàngu jàngu gi yenn waroon métier yi di def door a dem seen kër moo jàpp li ko wuutale bariwul xanaa pas-pas bi ak yéene ji ak na doon ndox sàngam waaye ku jàpp ba set wala mu sangu bu ko mënee def moo gën cangaay li moom daf cee am solo lool ñu fàttaliku ne du càngaay li mooy julli waaye njàpp mi ci biir càngaay li mooy julli su fekkee tojut ci biir càngaay li kon ku jàpp ba set euh, solow xeeñoo gët laj ko lañ benn mu dugg walla mu dox ñëw ca jàkka ja toog fa mu jëkka yam ba ba muy fees bañu jéggi nit ñi bañ bu ñuy xut ba muy wax ñu julli sëlmal mu dem ndànk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te lañ fa doon wax ñu cay tere mu jàpp ne moom la ñuy waxal luñ cay digalee mu jàpp ne moom lañ koy digal bu jógee ba ajjuma yi dellusiwaat mu fas ci nee teg tànkam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na kooku aljuma jii mu defee nii ba ba ajjuma jee dellusiwaat bu dellusiwaatee fekkewaat ko ci jàmm yàlla ñu ko yàlla defal yàlla jéggal na ko lam fi defoon ci ay bàkkaar yu ndaw topp ko ca dara su fekkee bàyyi na fa yu mag ya yu wax lu dul dëgg bokk na ca fenn jëw bokk na ca rëy rëy lu bokk na ca naw jëf bokk na ca ak njistal rawatina nag lekk alal joo xam ne ki nga ko jële si moom tey bakkanam dala ko joxe da nga koo nax wala nga wax ko ci sëñ bi lu ko jaral te fekk yow ma ko koy wax yow la ko lal ak neen dong la yal nañu ci Yàlla musal nee na du yem ci ajjuma ak ajjuma képp waaye da cay yàlla da ko cay joxaat taran taran ñiy jeexaat xam nañ ko mooy teg da ko cay tegalaat gaawu ak dibéer ak altine yépp mu jégal ko ko yàlla ñu ko yàlla defal kon ja aj julli ji ajjuma jar na lu nekk yonent bi waxaat ne moo ne julli juróom de noonu la mel ku julli suba ba tusubaar jot mu julli ko te diggante bi def benn bakkaar bu mag bakkaar yu ndaw yàlla musal na ko ko lu mel ne bët bu jékki-jékki na jàkk ci lu mu sa xool mu tarfati walla mu dégg ko daal di kaaw tarfati wala ñu koy wax mu mu mu mu mu mu maando ba mu yàgg mu ne siñ bi te ngeen di seetaat li ngeen di wax wala li ngeen di wax rëcc rëcc la yiy rëcc mu ne ca tonet rek ne nangam te fekk teyu ko yonent bi nee na julli juróom noonu la mel rawatina nag aljuma ak moroom ja rawatina koor weeru koor ak moroomi kooram waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu mu digée ne yàlla waajalal na ñi julli ji aljuma yool bu rëy boo xam ne mënuñu koo jëlee ci lu dul julli ji aljuma am na lu mu teg ca pegg ba muy dig bu metti bu naqari bu tiis ci koo xam ne julli ji aljuma mi ngi ko war góor la mu kàllaf la ba mu doon julli ba noppi ànd kom xelam dara jotu ko te mi ci dëkk bi waxuma la am wérug dem waaye mi ngi gaare mi particulier yenent bi nee na kooku su tegalee yetti ajjuma yoo xam ne julli jiwu ca te lii lépp mi ngi daje ci moom ah su moytuwut yàlla dana fab ab tampon teg ko ci xolom bi ne xol bii moom na ko malaayika yi teggi bu ñuy seet ji fu pas-pas nekk waaye na ko malaayika yi teggi bu ñuy seet bis ba nga xamante ne yàlla nee na laa yanfau maalun wala banuuna man ata allah bi qalbin salim wa uslifat jannatu lil muttaqin wa burisat jahimu lil gaawin waaye yonent bi nee na yàlla mën na koo tamponeel la yantahiyanna aw la yaxtimanna la boole la yaxtiman summa la yakku nan na min alxaafilin amu ci benn boo xam ne ci ñaar yooyu buy mat a jéem a bokk la ndax bis boo xam ne yàlla nee na soxlawut ku jaboot di ko joxub cër ndax daa jaboot di ko joxub cër ndax daa am alal waaye lim ko liñ ko fay joxu cër dal mooy xool nañ xool bi seet ko settantal ko mu set wicc lu dul yàlla nekku ci lu dul yàlla nekku ci nag lay tax mu mën a am mooy fi yàlla joxañ nit jàmm bi jëm fa fu mu joxañ ne nañ fa jëm mu jëm fa moo tax mu ne ku tegale ñetti aljumaa te sàggante dong naaj wi tàng na te am na it auto voiture climatique daa sori te am na lu ko fa yóbbu day xumb daa bañ nit ñi gis ko nee na yàlla attan naa fab tampon bi nga xam ne ku nga ko tamponeel dara du dugg ci moom ci pas-pas dara du dugg ci moom ci gëm yàlla te ku weddi yàlla weddi waale ne yépp yi ànd ak gëm yàlla yaa duñ ci yàlla musal loola dara jëru ko waaye am na beneen riwaaya bu yonent bi waxe ne kooku sax bu ñuy lim naafiq yi daayira naafiq am na si carte de membre te innal munaafiqiina humul faasiquun te yàlla nee na yonent bi laa tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabrihi ci munaafiquun yi yonent bi waxaat lu gën a doy waar Euh, du waxe bakkanam mën naa metti ci nun waaye lant rek la daf ne su ma ko manoon bu ko sama jot mayawoon ma ne fii di xutba di wax ak yéen yàlla mayaat ma ma doonaat jëmm yu bari kër gu ne ma mën caa dugg su ma ko mayoon damay nekk fii di xutba jeneen jëmm ji di wër kër yi kër yi ku julli ji wut te amut a ngànt ma lakk kër ga ca kawam moo ànd kër ga tàkk dem te ku yenent bi xool ba xelam dem ci ab safaan kepp yàlla àtt na ci moom safaan ba ba noppi am na ku ñëwoon fekk mi waxtaan ba tàng jër ne lu ma waay laaj na la tontu tey néewut xam naa ko de néew lu ma war xam naa ko dana la tontu kooku ñëw ne ko ana fu ma nu ma tudd ak fu ma jóge bi may ñëw ak fu ma jëm bu ma jógee fii tàngoor bi ma walbati dogal bi wala mu taseeg dogal ba yeneen bi daf ko ne ki ñu wax ne aw tur la ci liñ ci xam mooy aw sant tur yi nit mën nañ ko bokk bokkale waaye aw sant la ñuy xam liñ gën a xàmmee nit ñi foo bokk njaayeen ngeen nga bokk faaleen ngeen nga bokk yeen gën nga bokk ba mu waxee santam wa yonent bi ne ko sant woo wi nga wax sant wi ñuy wax ne moom nga sant santoo ko kooku juru la du sa baay kon loolu mën na ko ñàkk dégg mu ne ko ci caaxaan nga bàyyi ko bi ngay ñëw fii te boo jógee fii sa war a nga jëm ba muy romb ak garab riwaayaat yi bari na ñii ne daa damm ca la moroon daa daanu ca daa daanu ca la moroon daanu damm dee ñenn ñi ne daa am ndox ndox suufa ko laal waaye daal ak àggut daal bu fekkoon ne dëkk la jëm daal àggut ci dëkk dogal ba agsi ci moom kon bokk yonent bi xool safaanam mooy kara ba ñuy jaayante mu xool gisut abu darrin alxafaari mu séen benn waaye na ak a neexoon kay doon aba dar fa saa sama daal koy nekk kun aba darrin fa kaana abu dar kon bokk féete ca wet ga nga xam ne moom la yonent bi yéene aw yiw ba naan ku def nangam dana am nangam ak nangam ak nangam loolu moom yàlla dogal na ba noppi ña ca dox jëm moom jot nañ ci seen wal waaye ñamey wax naan ku defut nangam dana la dajeeg nangam ak nangam ba di leen yéene kër gu lekk seen kaw loola buñ moytuwut yàlla nañ ci yàlla musal te wëlbati leen ñoom ñépp waaye euh, lu yomba dal nit la su fekkee gaawul wàññiku te yàlla ubbi na ay loxoom yonent bee ko wax ne bu bëccëgee day tàllal loxoom ne ana kuy tuub ma jégal ko ba jant bi so bu kenn bu kenn bu ci kenn tegul mu bànkaar su guddi jotee mu ne damaa yaakaar dañoo jot ci bëccëg bi kër kër ji tàllalaal ci guddi gi ne ana kuy tuub nee bu bët seetee bu bu kenn tegul mu bànkaar lu yomba yomba la yàlla noonu yàlla jéggal te xiir ñu ci ay ndigalam ak teraam safaanu ngantul dem ajjuma nag mat nay leeral lekk-lekk waaye su ma nee góor jigéen kon am na ngàntu leb ajjuma donte ma mu la mu waaye buñ ñu nee mu kàllafay doon xanaa gone génn na ca bu dee ku wér ku wére di génn na ca wére dig lan goo xam ne dem metti na ci moom benn ñaareel ba su demee xat-xatloo bi ak mbooloom noy yu bari yeeg ziham bi am ci jàkka ji wére gi mën naa yéex a wér wala ak wére geneen mën na caa sosoo su boobaa su boobaa ngant am na waaye koo xam ne dafay jaar dong dem fuuta it ajjuma waru ko fi donte ci buntu jumaa ji lay romb waaye su jullee itam mën naa baax wala koo xam ne dafay ñëw dong di am commissaire di dem xamut ba xam ñaata fan la fi amet comme ni ni fi ñu wàññee julli rek waaye ki may bëgg a wax moom yàlla nañu ci yàlla musul mat naa mat naa bàyyi xel ba mu bañ a doon ngànt muy ko amee bor lool ba noppi ñu teg ko ca taxawal ba mujj mënut a génn ci mbedd yi waxuma laa dem ci maaj di taseeg ñam fa ameel ay bor loolu lislaam lim ciy joxoñ mooy nit ki am jom ba bu dee lebet fas yéenee fay fexe ba bari bor ba nga doon ngàntul ajjuma ndax bor ya lam ca doon wut su la ko cay dal fekk na ko ca ba noppi mu nar a ñàkkaat lañ digg ci julli ji ajjuma waat waaye koo xam ne itam daa am mandat man mandat d'arrêt waa ñi seetaate ñi ngi koy seet yàlla nañu ci yàlla musal kooku tam am na ngi am na ngànt waaye kooku la Sëñ Tuubaa waxoon waaja la war a def loolu jër su daw am na koo xam ne dañ ko tëj njëreem ci taalibe yi ndax daa waxoon nangam ak nangam ñu àtte ko war ko tëj weer mu dawee ci kaso ba ñëw ne sëriñ bi dem naa ñëwaat naa de mu ne ko foo jaar dañ laa bàyyi mu ne ko déedéet mu ne ko acci neel coow delluwaat ginnaaw dañ laa téye ci ay loxo demal ba ba loxo yee yawi la ba mu demee ne dellusiwaat naa man ngeen doon war ñu ne ko ah, mu ne ñëwaat ñu ne ko ci foo ko teg mu ne ñu ne ko nañ ànd ba ca kooka ñu ànd ba ca siñ bu mag bi ñu ne ko yéen de xam nga xam nañ ne li ngay wax dëgg la ci yow jéggal nañ ko ci loolu jéggal nañ ko ci jëfe gi mu jëfee delluwaatal ci kaso ak kaso neem naqaree xam nañ ne loo wax nit ñi dëgg la dama xamul nag ci diggante bi ñuy waxaat lu ñu wax ñoom waaye sëñ moom lu mu mas a wax noonu ba ci kuñ tëj kaso kon moom teggilut kuy daw ñu jàpp ko ngantul ajjuma daa war a dem ci ajjuma ñu jàpp ko fa yóbbu kaso gannaaw ba mu koy dund moom dong la woon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku dégg nodduk ñaareel gi te mooy nodd gi ñuy moom sax moo doon nodduk ajjuma moom kenn moo doon nodduk ajjuma dañ ko daan yeex a def tuuti ginnaaw bi nit ñi gën a bare ba gën a bare la nodd ay noddaat waaj leen waxtu wi jot na ay ca ñëw leen yonent bi nee ku ku dégg nodd gi nag te amul ngant su jullee tusbaar fa mu nekkit ak julleem baaxul lu tus lu lu ajjuma yi gën a bari te jenn tusbaar su baaxut tekkusaan ci topp du baax timis ja baaxut ñaata at am na ñoo xam ne julli ci wuñu ajjuma te seen julli tusbaar baaxut ndax amuñu ngàntul dem at ajjuma te yonent bi sallallahu alayhi wa na bu ëllëgee julli lañuy seet ci jàmm bi su baaxee mënees na ko jéggal lépp kon jullit ajjuma ko noonu ñu ne ko ngant mooy lan mu ne alxawfu aw maradun xawf wér wér di ko yéex wér ragal ñu jàpp ko ragal ñi koy fay bar fayu ko ragal kim fiy bàyyi su ko fi bàyyee mën naa am lu mu soxla gannaawam te du ko mën a am wala mu daanu gannaawam te du ko yëg ndax ànd ak sagoom wala ak wéridi rek moo tax bis wax na loolu Seydina Abdullah ibn Abbas moo ko ubbee woon bis boo xam ne danoon taw waxtu ak juma taw bu xaw a metti mu ne kay nodd nodd a ñàkk waaye soo nee ashadu ashadu anna muhammadan rasulullah bu ca teg xayya ala salaa ndax taw bi xuus ci taw bi dem ñu ne ko ah lu ñu teg mu ne sallu fi buyootikum ashhadu anna muhammadan rasulullah sallu fi buyootikum ñu ne ko loolu nu mën a amee te te xayya ala salaa xayya ala falaa ñu daak wax jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah su ngeen itam de ku ko gën ku ma gën fuuf def na ko sallallahu alayhi wa sallam nee na ab noddukatam boo nee xayya ala ci bis bu metti ab taw ak ban am na dëkk yoo xam ne day day taw bu tawee ban bi day téye nit day tarxiis nit ñi dañuy tarxiis daanu yonent bi ne ko boo nee xayya ashadu anna muhammadan rasulullah ba war a teg xayya ala salaat ko teg sallu fi biyutikum ndax aljuma farata la waaye nag eh, farata nit moo koy jëfe te nit ki dañ ko war a aar kaaraange lu mat sëkk ba mën a joxe farate suñu borom yàlla nu yàlla defal dégg ak topp te musul ñu ci seytaane ak rëcc rëccam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimin